والقلم وما يسطرون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 رحمة ربك بمجنون sama kàddu tey yi nag li ko sabab euh, jamono la xam naa ni sax tu lu ma man lool ndax yaram bu sutante waaye ñoo ngi sant yàlla waaye dama gis bokk yu bari ñi di ma yónnee message ñi di woote te xëy na ñëpp mënuma leen a tontu. ma bëgg cee def ak leeral gu ndaw rekk fekk jamono ji gën a yaatu. soow li nag dafa mel ni bari na lool ku ne ngi wax ku nekk li ko tax di wax waaye li xew lan la lan moo xew nee nañu euh, Cheikh Omar Diagne dafa ñàkke war ma kilifa yi dafa war a démissionné ak yeneen yu mel noonu waaye man ma sampuk laaj lan moo xew réellement li xew lan la ndax dafa am lu mu wax wala dafa am lu mu def lan moo xew ndax kat yàlla dimbali nañu ñu roote ci Cheikh Abdoul Ahad ba ngelaw du yóbbaale jikkoy ëkk yi tamit lañu yore ah, ku yaakaar ne mën nga ñu yóbbaale ci dara nag danga xamoo sa bopp xamoo itam ndax ñun kenn duñu yóbbaale ci dara lépp lu ñuy dugg danañ ko seetal suñu bopp ba xam lu mu doon la aju noonu ko Cheikh Abdoul Ahad daan waxee li dikk lu ne ak la ko ci indi loolu danañ ko seet kon nañu xool li xew lan la li ma fi gis ci lu bees mooy ginnaaw bataaxal bi ñu gis Omar Diagne la kon dama naan Omar Diagne moom moo gàntal sakkuteefu comité d'organisation moom ci li mu bind ci këyit bi bu màggal gi te président comité d'organisation bi sëñ Bassirou Abdou Khadre génn na wax na ñoom sàkkuwuñ ci ñoom dara ndax seen sàkkuteef yépp euh, euh, defal nañ leen ko kon mu mel ni benn commission bu bokk ci comité d'organisation bi wala boog sëñ Cheikhouna moom sëñ Laaji Baara moom moo ko moo bind bataaxal ñu imputé ko mu tontu ci man nag loolu awma ci problème awma ci problème ndax jàntal ga ba mu amee fi saasa la mbir ma réglé te noonu mu réglé aw yoon la woo wane woo xam ni moo gën a dëppoo ak ni sëñ Touba bàyyi woon mooy ku la manal sañal la ba tax na bi ñuy taxawal jumaay njaareem dañu woon ku ne ci def sa yëfi te yoon waa ngi nii lu ngeen di defat yëpp na ngeen ko defee nii kon alhamdulilahi rabil a gàntal googu man sant naa ci yàlla ndax tax na mbir ma saafarawu te at yi di ñëw it allah day gën a saafarawu gan ñi gën a bari te bu boobaat duutuñu ko jaare foofu dañ koy jaare ci fin ko rek loolu ma xam la rek ni wax dëgg yàlla koo xam ni dalal nga ñeenti association islamique muy la présidence de la république ci teewaayum moom Omar Diagne nga débloqué une centaine de millions exactement cent dix millions jox ko quatre associations te benn bi rek am na quatre vingt millions muy años bi nga xam ne moom la imam Moustapha Gueye jiite woon te Omar Diène jiite ko tey ji yaakaar naa ku def loolu war ngaa mën a jàppaleel la commission des affaires étrangères et religieuses bu comité d'organisation bi ci loo xam ne matul sax quinze millions ci ay gan yoo xam ne leer nañ li demul ci poosu kenn mais bref wax naa li ma ciy wax ne man sant yàlla laa ci def waaye damaa xam ne qui peut le plus peut le moins ku mën a def une centaine de million ci préparer tabaski jox ko ay imam war nga ko mën a defal tamit la communauté mouride wala boog sax sénégalais yi ngir màggal gi ndax mboolee seen ñoo ñëpp léegi nga leen defal benn bi la kon ku def lii war nga ko mën a defal ñii itam léegi nag ma dikk ci beneen bi nga xam ni laa fi gis lu beesaat lu tax xin na ñuy wax lu bokkul ak wax yi ñu génne bii wax na ni dañu war a améliorer mbindum mag ñi euh, ndax lu parfait amul la perfection amul nit ñi dañ ciy tendre kon nag war nañ ko parfaire ginnaaw perfection amul nan la ñuy parfaire moom kañ dañoo war a wax ni c'est un travail continu rek mais bref loolu yi tamit man wax dëgg yàlla awma ci problème dafa am question yoo xam ne dama koy posé rek mooy ni bu fekkente ni dañoo wax ni dañuy euh, améliorer seen mbindum mag ñi c'est améliorable ce n'est pas parfait ok d'accord mais améliorer leen dans quel sens est-ce sur le plan littéraire la maanaam naxu bi la ndax maanaam sur le plan grammatical ndax dafa am ay yàq-yàq yu ci nekk wala quest yoo xam ni dañ leen a war a corriger wala dañ war a améliorer seen mbind wala seen xam-xam ci wàllu arab fa mu toll woon tey adduna weesu loolu xam-xam bi langue bi gën naa riche loolu dañoo war a jéem a xool loolu pour li ñu bind ñu sukkandiku ci bindaat leneen est loolu la bëgg wax wala boog est ce que c'est sur le plan des sciences religieuses kilifa yooyu nga xam ne bind nañ ci tawhid bind ci fiq bind ci tasawuf loolu ndax lañu ca bindoon sukkandiku ci alxuraan ak sunna ak ijma ak euh, waroom xam-xam yi li nga xam ne dëppoo nañ ndax loolu la bëgg a wax ni loolu lañu ñu war a améliorer wala bokk ci moral islamique li nga xam ni ay adab la muy ay teggin ay valeurs yoo xam ne dañu koy digle di ko santaane ak yu baax yu ñu war a def di ci wut aw yiw ndax loolu la bëgg a wax ni dañ koy améliorer wala ndax ci yoon ñoom yi ñu jaaroon di ci dox nga xam ni théoriquement bi nu jàngee liñ jàng ba noppi dañoo sóobu am ngir di ci dox la ñuy gis ca yoon wa ak tegtal yañ cay am ak di ca am yuñ cay junj est-ce que loolu la wax ni dañ koy améliorer wala boog est que li am ci seen boroom nag nga xam ni léeg ñu tudd ko léeg-léeg am luñ ci junj ndax loolu la wax ni dañ koo war a c'est loolu dañ koo war a teg ci penc mi xoolaat ko man comprendre ma comprendre ma concrètement lan la ñu war a améliorer waaye ala xaal man loolu gêné wu ma parce que dafa wax ci généralité li mu wax lu aérien la li mu wax xawma ku xam lan la waaye man xawma li mu wax ndax boo naan dañoo war a améliorer dara da ñuy jox ay exemple ñu xam li ngay wax lan la bu fekkee da jàpp ni seen bind ay njuumte am da nga jox ay exemple ñu xam lan la waaye ala kulli xaal man loolu mënuma koo mënuma cee taxaw mënuma koo jox benn crédit ak benn importance parce que ki koy wax mooy kan ki koy wax moom jàngul diine jàngul arab maa ngi moom ñoo yem li mu jàng français la njàngum français moom mu jàng produire na ci benn lettre lettre bi quasiment benn page la bi muy tontu comité bi li ci nekk ci faute faute toy na ni inna kon moom moo toll ci ñu koy corriger ak di ko teg ci yoon waaye moom tolloogul ci li mu jàng képp di ci corriger kenn waxuma laa la mu jàngul nag kon kooko ku bàyyi xel jooju wax man finalement yow yaa may jaaxal ndax gone goo xam ne parental la toll ci euh, en réalité di di raam ba noppi boole ko xiibon su fekkee moo tëkku mbërum làmb man ci tund wa naan ko danaa la loola ñu naan nan ca wooteeg nan ca diisoog nan ci waxtaan ak balaa gone gi di def lii man wax dëgg yàlla ñay woote ca loola ñoo ma jaaxal waaye du waxi gone gi ndax kat dof ba dañu doon seen weer wa weer waa nga weer waa nga ñëpp ni weer waa nga muy wëlbatiku dañu weneen a ngee ca ñag ba wax dëgg yàlla weneen a ngee ca ñag ba nag buñ ci bëndi indi débat man ñi bëgg indi débat bi man ñoo ma jaaxal alors par contre nag moom mi nga xam ni moom moo wax lii ah. moom mi bëgg corriger amul background bi amul bagage intellectuel bi amul profil bi encore moins xam-xam bi pour ni dafay améliorer yu sax waxuma laa di améliorer njàngale ak waxi mag ñun ci bàyyi te it loolu jërul coow warante ko xam tekki tubay dañu jël ay téere jébbal ko ko may ko dix fukki at mu lëlu ci te wër àdduna dem woote ñu ko ci jàppale su dix ans yi matee incha allah ñu joxante rendez-vous toog ci penc mi mu jox ñu mu wax ni lim ci amélioré ci mboole nan mboole seen nag muy mbindum Cheikh Omar Fouti mbindum euh, Seydi El Hadji Malick mbindum Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass mbindum Cheikhul Khadim kenn ku ci nekk ñu jox ko ci ay téere bu fekkente ni xamagul ci ban sens lay amélioré nan jël téere yi jox ko may ko fukki at te may ko yi tamit jàppale ko ci mu mën a wër àdduna dem wuti ñu ko jàppale ci critique ba muy wax ak ku ko mën a améliorer mbind moomu bu delsee bu fekkee gis na lu ci amélioré ñu ne alhamdulilah loolu xam-xam la ñuy yokku après on avance léegi nag ñu war a interroger wu ci kiy wax kan la kan mooy Cheikh Omar Diagne wala kan mooy Omar Diagne man de sañ maa wax ni xam naa ko ndax xam nit lu jafe la ndax nit ci boppam sax xamul boppam dafa am loo xam ne xam na ko ci boppam am loo xam ne ni ko xamee ci boppam la ko ñëpp xamee ci moom am na loo xam ni moom xamu ko ci boppam te nit ñee ko xam ci moom waaye am na loo xam ne nit ñi xamuñu ko ci moom moom xamu ko ci moom yàlla mi ko bindoon rek ko xam ci moom kon sañu maa wax ne xam naa nit waaye am na lu ma xam ci moom ndax on a cheminé ensemble te bari aana ñoo xam ne buñ ko xamee tey surtout ci place publique bi découvrir ko yàlla mi dogal moo ko dogal waaye am na rol bu mu ciy joué li ciy firnde mooy euh, jàpp naa ci loxoom yóbbu ko ba ci mun Muntaxa waaye jaamihu sayfiya nga xam ni samay mbokk ak samay wëllëre rek fa nekk Euh, thématique yi ñuy choisir ay jamono daan nañ ci diisoo ak man may ci participer ci élaboration thème yi wala sax ci euh, tànn nit koo xam ni dana ko mën a def ba yóbbu naa ko fa mu def fa waxtaan itam ak yeneen barab yu bari yoo xam ni moom xam na ko xam naa ko man li ma xam ci moom la ma ca waxoon laa ciy wax ba tey ku bëgg lu baax la ku bëgg la lu baax la te lu baax jaral na ko lu bari te loolu nag lu ma xam la mënuma sukkandiku man ci lu may dégg ndax nit li sëñ Saliou daa wax rek boo seedewul ci moom li nga xam ci moom ak li nga jëflanteeg moom seede ci moom loo njot ak looy dégg dong wax dëgg yàlla loolu euh, seede xaw fen la mooy chambre de toujours yi loolu ñun noo koy teet fas nu ko yéene def ba tax na li ma xam ci moom mooy bëgg lu baax ku bëgg lu baax la lu baax jaral ko lu bari li nu xam la ñu seede wa ma shahidna illa bima alimna waaye nag xam nañ ci moom it ñàkk a ràññee ñàkk ràññee gu fés gu wér goo xam ne ku ko xam te xam ne tuuti yewit da xam ne ràññeewul ñàkk ràññee gi li ko firndeel bari na ndax man waxuma di wàcc tey combat bi ñu nekkoon muy combat bu rëy boo xam ne sénégalais yi yépp wala li ëpp ci sénégalais yi rawatina kilifa yi ñëpp fédéré wu ci ànd ci nga ubbi ay front ci ñooñu ñëpp ba ñu ci bari tayyala loolu ku ràññee du ko def ndax ñun on avait besoin de fédérer waaye soxlawuñu fu nañu ubbi fa front ku ne jàmmaarloog yow loolu ñàkk ràññee la benn beneen bi ci def dina wax lu mu xam dina wax lu am njariñ lu wér la waaye dina wax itam lu mu xamul ndax ay values nucléaires boo ko waxee nit ñi dañuy ree bay bëgg a dee dañuy ree ba seeni rangoñ fastante booy wax ay e, doctorat yu bari yoo am te kenn xameesul fan nga soutenir kan moo doon sa directeur de thèse ñan ñoo doon membre du bi booy wax ay spécialité yu bari yoo xam ne daanaka mën nga koy lim ni champignon di màgge noonu lay màgge bis boo xëyee doon spécialiste ci benn beneen mbir bu bees bay wax ne da làkk ay làkk yu bari ci fukk ak nangam làkk fukk ak benn ba yegg nga ci làkk bi njëkk a làkk ci kaw suuf si sax léegi xam nga ko te une première am na mooy delloo si waat nga abajada ba te loolu mi ngi soog am ci kaw suuf léegi loolu danga nga ko baaxee nit mais loolu mu mënu ko weesu nga dolli ci ni ay pomme de lune chinois yi dañuy bay ci euh, weer wa loolu loolu euh, yaa xaytu Mawlana fu mu am dana wax lu mu xam mais dana wax lu mu xamul ñun ñii lii may wax ku mu neex demal deux mille dix-neuf bi ñuy def journée xeex mbon gi ci kuréelu le collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ànd sàmm jikko yi booba man maa toog on était cinq sur la table man maa toog je pense Adam Bouk moo toog sama droite Cheikh Omar moo toog sama gauche y avait euh, la la présidente des femmes ak le président des jeunes ñoo toogoon ci côté yi ñoom je pense ku ci nekk waroon na la jox dix minutes su ma fàttewul am lu ñu la waxoon ni traité aspect bi avant man may def sama communication je pense moom bi mu waxee waroon a wax sur le plan international ak mbon bi bi muy terminé gis nañ benn kaamil bu mu fa yëkkati wax ci ay wax yoo xam ne biñ ko vérifié dara amu ci dara amu ci ba nga xamante ni ñooñu naroon nañoo topp ci yoon suñu kuréel bi keroog la naroon a tas mais heureusement am ay nit ñu ci yem ñoo xam ne ñu baax lañu attiré suñu attention ñu topp ko ba ca kaw ba ñi ci waroon a jéglu ñëpp man ma jéglu leen personnellement ngeen gis moo waral bi ñuy def suñu manifestation ba ci bu mujj bii ñu def le 20 février 2022 biñ nee moom Cheikh Omar day jël kàddu dama leen du fi jëlee kàddu parce que li muy wax non seulement contexte boobu propiceul sax mais mën na laa dugal ci loo xam ni en réalité bokkul sax ñu nañ tënkoon te lii keroog livre bi téere boobu Adama Mboup moo ko andi woon bi mu ko andee ci veyu journée bi mu yëkkati ko ma ne ko lii kenn ko boole ci thématique bi parce que journée Cheikh Mbon gi la woon ay thématique yu bari lañ doon abordé ma ne ko téere boo xam ne yaa ngi koy soog a gis gëstoo goo ko nan nga mën a jëlee téere boobu rek dugal ko ci wax ci suba wax ci loo xamul su ko defee nit ñi am bunt bu ñu jaaree nelaw lii nga wax du dëgg lii du dëgg lii du dëgg loolu day dindi crédibilité nit nit lu muy wax war na koo xam kon téere bi dencaat ko aadama denc téere bi bi koy déposé ci otoom ci ko àbb téere bi bi mu xëyee ñëw brandir ko wax te waxoon nañ ni bu ci kenn wax finalement loolu dalay jaaxal sax da nga naan kii qu'est-ce qu'il concrètement ndax def ñu bëgg a détruire de l'intérieur wala qu'est-ce qui parce que on avait convenu que ni téere bi bu ci kenn wax li may wax ku mu neex demal nga def recherche bi da nga gis ni téere bi jël na ko brandir bi muy daaneel ay kàddoom alors kon dana wax lu xam waaye dana wax lu xamul beneen bi ci des tamit mooy dina sos blanchiment d'argent boo waxee ni réew mi blanchiment d'argent mi ngi am ci diggante trois mois muy muharram safar rabiul awal maanaam ñetti weer yi jiitu ci atum euh, hijriya wala boog atum wolof ni rek bu fekkente ni ci lay am nga xam ni loolu événement bi ci gën a rëy ci muharram màggalu daaru xuddoos la Touba lay amee évén weer wi ca topp événement bi gën a rëy ci àdduna bi laa wax Touba lay xewee muy màggal 18 safar bu dee gàmmo ñu xam ni Tiwaawan dafay gàmmo Medina Baye dafay gàmmo mboole ëtti diine yi Sénégal yëpp dañuy gàmmo Sénégal yëpp def ko nga ni si diggante boobu te sëriñ si ñoom ñoo def blanchissement d'argent bi mais loolu tooñ mënu koo weesu sos mënu ko weesu xanaa bu dul dara Sénégal nga xam ni vrai passoire la sax lu ne lu jóg dugg fi xanaa xaalis boobu am na fu mu jóge ko ko fi dugal fan la ko jaarale xanaa jaarale ko ci circuit bancaire wala da koo def ci valise embarqué ci ab aéroport wala daf koo def ci otoom dawal oto bi nan la ko dugalee ci réew mi nga tuumaal ay sëriñ ni sëriñ si ñoom ñooy blanchir xaalis boobu euh, ci seen i dañuy laal commission dix à vingt pour cent mais ay fas la yamul ci loolu ah euh, teg yeneen yoo xam ni boo ci dugg sax doo ci doo ci génn boo ci boo ci boo ci dugg finalement da ngay mujj sax ridicule da mujj wàcce sa bopp alors mu teg ci itam mën a tooñ mën a tooñ ndax bu fekkente ni du ma jaaraat nag ca ñamu tuddoon waaye ay xalifa ci biir réew mi nga ni xalif général sàngam imbécile la ñu baal ma wax yi mais loolu moom moo ko wax ñu ni déete waaye mu ni imam ratib sàngam imbécile la ñu ni déete waaye mu ni way imbécile lu saaga mooy quelqu'un qui est faible d'esprit tout court ñu ni déete waay mu ni xalifa sàngam matul kilifa ndax day déglu musique ndax lan nee na dabbe ñu ni jëtawaay nga ni xalifa sàngam dealer la loolu ak tooñ la yaa xayti mawlaana ak tooñ la nit ki boo seetee ba ni man mutuma kilifa xamal nit ki soo xoolee ba ni defuma ko kilifa wala matuma kilifa am na ñoo xam ne sii def nañ ko kilifa mooy seen kilifa te mat na leen kilifa te doyloo nañ ko comme kilifa te nga séq ñooñu ci penc mi te mu leer na ne mbir mu mën a doon boo ci duggoon ci diine ñu attan ci loo xam ne attanoo ci nga bëgg leen faa jàll dem ci seen kilifa naan matul kilifa seet beneen xalifa ni moom dileer la ndax Macky Sall da koo jox temps moom it mu tabaxal ko kër ak yeneen ak yeneen yoo xam ni kon loolu ak tooñ la goo xam ne daf koy def te muy lu wér te loolu man wax naa ci guddi wax naa ci bëccëg ah yam ci nit koo xam ne dañ naan la yow boroom xam-xam nga boroom xam-xam am na kàddu yoo xam ne di génn ci làmmiñam la meute des imbéciles des cons <coughs> ah yu mel noonu boroom xam-xam du waxee noonu ndax boroom xam-xam kuy leeral la kuy gindee la day fekk nit ku nar a surux mu yëkkati ko nit fekk ku jàdd ci yoon mu teg ko ci aw yoon waaye du doon nit kuy violenter nit ñi ak di leen heurter loolu boroom xam-xam du ko def xam-xamam moo koy tàqaleeg loolu loolu yëfi gone la gone yi def loolu di dagg santeeg ak yëfi jigéen bu nu nekkee ci pindub teen ba coow li ci pindub teen ba gaa ñi amul baag la loolu woykat ba wax na ko waaye it euh, ku ñàkk ràññee la li wolof di wax xamadi xamadi ku ñàkk ràññee combat bi ñu doon def nga xam ni ñépp lañu fédéré kan mooy nekk ci combat bu toll noonu di jàmmaar la waat ak ñenn ca ñooña ubbi front nit ñi kenn ku ci nekk maintenant def ko problème personnel ba nit ñi daanaka tey ba nga xam ni tey combat ànd sàmm jikko yi fracture bi ci njëkk am Cheikh Omar ko andi ba mujj na biir ànd sàmm jikko yi dañuy rayante suñu biir ñii jëlal ko cause ñii taxaw fële kenn ku ci nekk jàmmaarlo te pourtant lii de wax na ma moom guddi wax naa ma ak moom ci biir wax ak moom ci biir ko ba jàpp ay ndaw sax yabal ko ci ñoom di di di di yeble pour ñu dem waxtaan ak waaye gis ngeen ko ma mujj xam ni lii nattug yàlla la li ma ci war mooy ma xam ne nattub yàlla la te la ca war ma rafetal ko waaye nag duma ma far kuy tooñ duma ma ànd ak kuy tooñ tey tamit du ma xam kenn ni da ngay tooñ yi tamit ma faat la ca loolu loolu ñemewu ko sax ñi ma ragale tooñ noonu laa ragale far kuy tooñ jamais ba tax na bi ñu ko jàppee sax nit ñi ba def nañ pression naa jóg naa ci woote naa dama leen defuma ci benn jéego lu dul man jël naa ay avocat lii may wax maître Bocar Absa Ndao ak maître Moussa Sarr ñoom ñaar ñëpp ku ci ne maa woo pour nga dugg ci dossier bi défendre ko doon son avocat man leen foofu laa mën a yem ndax kóllëre lañ feq waaye nekk li wér te wóor mooy duma ci woote duma ci dox ndax toog na fii ci penc mi lu ne mu wax ko ay kilifa ak i nit kenn musuma cee dégg kon tey jii su fekkente ni jàppante naa nit waxanteeg moom kooko ni damaa tooñ yóbbu ko ci yoon su ma jógee taxaw jël sa défense dafay mel ni daan def lépp ànd naa ceeg ginnaaw noppi woon naa ci ba yu njëkk yi damay noppi ci bu mujj bi tamit duma ci wax publiquement jamais du ma ko def loolu nag xëy na mën na maa yemandi foofu sax waaye mbir yu doy waar la yoo xam ni boo ko seetloo ba ci biir sa xel mën naa dem ci yu bari nag ci nekk nii te mas naa ko wax ci suñ benn ndaje man leen sa combat laa man ragaluma ñuñ jàmmaar lool mbootaay yi ñu jàmmaar lool te ñi taxawee xifdu seytaane ragalu ma leen man li ma ragal mi ngi ci suñu biir ñun ndax léeg-léeg dëkkat am noon bu xarañ te aytal moo gën dëkk ak soppe boo xam ni xàmmeewul ràññeewul ndax day rey boppam reyaale la ci te la rey moom moo koy def te du ko xam te lépp jublu ci lu baax rek la la lay def kon nag moom su ma xoolee ci pas-pas bi mu am bokk na ci ni tarixa yi dañoo war a jóge ci kaw suuf lii ma wax moo ko waxal boppam fréquenté xamante naa ak moom xamante goo xam ni xam naa ne loolu ci xalaatam la bokk tarixa yi dañoo war a dem ci benn époque post tarixa loolu wax na ko nit ñi dégg nañ ko te loolu itam boo ko méngag léegi li mu mujjee wax nii mooy dëppoog loolu ndax bu fekkente ni man ci wàllu koom-koom am na ay théoriciens yoo xam ne dañoo ñëwoon am xalaat yu am waaye ci seen jamono am na mbir yoo xam ne dajewuñu moom am ñu ñëw ci seen ginnaaw sukkandiku ci xool seeni xalaat ak dégg nañ leen ñu xool par rapport ak mbir yi nga xam ne agsi na ñu yokk ko ca sos ko ca nga xam ne dañuy sos ay courant yu bees yu yu dellu ca moom loolu yi tamit dafay mel ni loolu lay proposé ñu jóge ci monde tarixa dem ci leneen maanaam amande ak améliorer mbindum mag ñi loolu mooy la mu njëkkoon a wax rek mooy tarixa dañ fee war a jóge ñu dem ci leneen loo xam ne doonatul ci kilifa yi ndax dañuy wane ni kilifa yi amoon nañ ay njuum te juumoon nañ ci nangam ak nangam ak nangam kon léegi ñu nañ ko jéem a parfaire kan moo koy parfaire xanaa ko parfaire la kan moo koy parfaire puisque euh, la perfection même c'est pas de ce monde là alors loolu nag lu mu wax la waxati ko te mooy lu mu gëm man nag loolu dara dérange wu ma ko ndax tëkku gone gone goo xam ni day soog a fer boole ci xiibon bu tëkkoo ki ub làmb ji ca réew ma waxuma sax tund wa waaye réew ma xëy ji bu woon mu ñu ni Bombardier wala wala Double walla wala wala mbër mi man ci réew mi gën fee bari doole te gën a soxor te gën a aay te mën a dóor gone guy soog a di tojal ñu koy kuus bu jógee na am kooko danaa ko duma loola ku ci indi débat yaa bëgg débat waaye loolu jërul débat ndax wax na lu jomb wax na lu mënta nekk kon loolu jërul débat man noonu laa ko gis wax dëgg yàlla gone gu togg toll ci mëq suuf daal ak tojal ñu lay kuus wax dëgg yàlla kooku moom am na yooyu soo koy waxee des ko bàyyi xel sax te loolu nit ñi xam nañ léeg nit ñi nekk ci daje wala nit ñoo wax la yenn ci wax yu doyadi yoo xam ne si wax yi yaa ko dul bàyyi xel yaay fëñu ci dem sa yoon am na lu jar tontu waaye am na lu jarul tontu kon lu waral coow li kon Omar Diagne waxu fi lu bees ci sama xam-xam man ak sama dégg-dégg waxu fi lu bees te li ciy firnde mooy li ëpp ci vidéo yi ñuy indi ay wax yu mu waxoon la waxu fi lu bees yi ñuy génne yépp nag lu mu waxoon la bu yàgg kon lu waral coow li tey kon te yàggu yëggul woon fii ñu ko bëgg a yeggale ñu ko yeggale ba mu ko fi waxee ca jamono yooya lu waral taxawaay bi lu moon noonu ñu ne ah dafa am poste yu mu am léegi nii yoo xam ne tolluwuse woon ndax homme d'état la loolu dinaa ci dikkat waaye ala xaal wax yi li ci ëpp li muy génne du wax yu mu wax léegi nii ndare lu rek li muy wax ni day améliorer mbindum man yi bu dee murit nag damay laaj ndonol Serigne Touba mooy lan loolu laaj la ba may laaj ci lan lanu Serigne Touba woowoon wut ngërëmal yàlla saa su ne ak fun mën a nekk rek nan lu sëñ Tuubaa bëggoon ñu mel ko mooy lu ñuy def ñu doon ay jaamu yàlla yu dul jaamu ku dul yàlla nekk ci di liggéeyal yonent bi dëppale suñ mbir yépp ak sunnaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam fonk ak mbokk du ñu tooñ te ku ñu tooñ ñu jéggal la ngir jënd yàlla loolu la sëriñ bi incarné wane ko ni loolu mën naa nekk ci lan dellu ci dogalub yàlla man koo nangu sëñ Abdoulaye fii la toog ni sëñ Touba amul dara lu mas a lijjanti boppam daa bàyyi lépp ci loxob yàlla ba yàlla def ci la ko ca soob rek kon foofu lañ doon woo ñun est-ce que foofu lañ wuy ji mais est foofu lañ wuy ji ku ca wuy ji xam nga ku ca wuy jiwul xam nga ndax ñoo nga ca loola ab laaj la ku ne mën na cee xool sa bopp waaye nii ñu bëgg a doxal ci ñun dañuy défendre Serigne Touba dañuy dóore dañuy xaste dañuy kii dóore yi kañ la tàmbali xaste yi kañ la tàmbali ak nii ñu ko bëgg a lijjantee ndax noonoo ko war a lijjanti yëf yi du fitna ak fët fët moo koy lijjanti waaye am xel ak xam-xam moo koy lijjanti moom dafa mel ni dóor nañu yet woo xam ne sax ñun seetlu wuñ ko bu nee ñu sëñ Touba falu fi kenn bu doon fal fal aw ñoñom loolu koñ moo ñuy wax ni yéen àndu ci seen biir sax ba mën a am solidarité ngir jëm sëñ Touba mi ngeen di wax te sëñ Touba mi ngeen di wax jaralu leen ndax tam mën naa taxaw woote wala ngeen àndagu leen sëñ Tuubaa jaralagu leen sax ngeen boole seen lépp ci taxawu réew mi ak li fi sëñ Tuubaa bëggoon ba noppi bu ñu ngeen ni dafa bañ sëñ Tuubaa wala da da koy lan lañ def ci wet googu ay question loo xam dañ ko war a posé wu en ah, effet dañ ko war a posé wu ñun lan lañ def ci wet googu tey jii lii ñuy def nii manifeste du ko lijjanti def ko lijjanti te pourtant amoon nañ ay moyens ak teg ay levier yoo xam ne lu ñu bëgg ci réew mi nañ koo am mais ba tey loolu defuñu ko fi nekk nii ndax lan képp kuy wax ci lu mel noonu man nga xam ni lu mel noonu dama cee dox dox ba fi mu ne wératuma sax dañu mujj jàpp sax ni ku dese nga duñ la fullaal duñ la faydaal te pourtant day mbootaay gu bëgg a taxaw tey juif yi mutuñu di vingt millions ci adduna bi te li ñu bëgg ci adduna bi ñoo ngi koy am ñun nag la sëñ Muntaxa waxoon rek quatre-vingt-quinze pour yoo xam ne fii jooytu dong lañ mën ñun lii ñuy jooytu nii en fait pour lan suñ organisé woon suffisamment war a man a am suñuy député yi bopp yoo xam ne député yi jëmmi sëñ Touba dong nga tax ñu taxaw taxaw ci assemblée nationale ba demuñu ci bannière benn parti politique wala jëmmi l'islam rek a taxaw tax ñu taxaw ci l'islam bu nga xam ne booba murit tijaan xaadir ñëpp ñooy àndandoo liggéeyu xam ne ñoo bokk drapeau bu l'islam ñu taxaw ca ca ca ca ca bu boobaa danañu taxaw fañ war taxaw te danañ def lañ war a def te looloo manifeste duñ ci fekk waaye ndax lislaam bi jaral nañu ko nit ñi wax ndax lis ndax sëriñ bi jaral nañu ko ay laaj la yoo xam ni dama koy laaj ñoo ngi langaamu ci ay parti jaamur ak di nangam di jàmmaarloo ci suñu biir ñun ci ay taalibe kenn ku ci nekk tëgg sa sëñ Tuubaa bopp ni lii mooy sa moom sëñ Tuubaa gone yi xamul dara ku ci jóg ni la lan yow doo murit wala euh, noonu sëñ Tuubaa nga wala da ngay jàppale noonu sëñ Tuubaa ñun fëkk yóbbuwuñu ngelaw yóbbuwuñu ndax yoruñu jikkoy xob fi ñu dégg lañu ñu dégg xam nañu li Cheikhul Khadim doon woote lan la ak fi mu ñu doon woo la te loolu liñ ci jéem bariwut dimbali suñu kilifa yi yàlla xam na ko dimbali wuñ président Diomaye nag man jàpp naa ni def na erreur bu rëy jàpp naa ni na erreur bu rëy ndax bu tegee ci wetam ku mel nii nga xam ni fu am wala fu fitna am dana ko wootal ba mu agsi ci wetam laal ko làmbaale képp ku ko jege kooku ku ko jël teg saw wet yaa bëgg ay yaa bëgg fitna te lii mu yor àndul ak béy aw ay àndul ak béy fitna itam ci ànd sàmm jikko yi moonu néewal doole ba xàjjaloo gi ci am am ci tey jii ci moom la bawoo ndax ay position yu polémique ay jàmmaarloo yu jàmmaarloog mbooloo yu bari ay ŋàññ yu mu ŋàññ ay kilifa yu bari ci biir réew mi yoo xam ne wax naa ni du ma del si waat na ma ko waxee woon ñemewu ko sax ba mbooloo mi séddaloo ay kuréel ñuy dóorante suñu ci ba biñ ko arrêté man am na lenn nag ci ay nit ñoo xam ne woo nañ ma ni ma yéen kon tarixa yi ngeen nekkal di leen kii ñun dañuy démissionné bàyyi ko fa mu nekk nag day wane ni président Diomaye Faye day matt di ëf su fekkee bàyyi na ko fee nekk loolu lool rek lay tegtale day tegtale ni ànd na ci li muy def man noonu laa ko gisee su ko ko jaralee nag bismillahi rahmaani rahim gumba neex na baat jant sono am na ñuy wax nag naan su doon tarixa yi rek jomaay du falu waaye waxu leen lu ngeen xam de wallahi alazim quatre vingt ci tarixa yi lañ bokk turux yooyu donte man xam naa ni sëñ Tuubaa amulub tarixa loolu man xam naa ko bu wér fii ko toog ni yorul ab tarixa li mu woote mooy yoon wa yonent bi àndoon ak sahaaba yi moo far mu gajj gajj ba buub ñeex ba ñu ku bëgg a dem ñëwal yoon waa ngi nii la jaar ngir dem ci yàlla kon xam naa amul tarixa waaye su ma nee tarixa nit ñi xam nañ li ma bëgg a wax li ñu tuddee murit tijaan xaadir laayeen laa bëgg a wax ñooy quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais quasiment wala sax plus ou moins yu ëpp ko mbaa ñu manqué ko tuuti waaye quatre-vingt-dix pour cent yi moom war nañ koo pat quatre-vingt-dix pour cent yooyu suñ àndalul mënoo voté te kilifa yooyu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa nga ca sa yaa ngi fonk sa beneen bi ko firndeel man nii ci sama bopp Ababacar Mbow gisuma ci réew koo xam ni gën nga maa sonn ci xeex régime bii fi nekkoon non pas politiquement mais xeex leen ci bilan mo bi nga xam ni dafa décevant ci ay ñaawteef tàmbalee ko nag ca Charlie Hebdo ja ci laa taxaw moom jàmmaarloo mënatumaa wax mukk ci lu jëm ci euh, Macky ndax man ku saaga yonent bi koo mën a doon gisatuma la xamutuma yaay koo mën a doon ci la sunu jàmmaarloo commencé ba agenda LGBT bi liñ ci taxaw lépp xam nañ ko te agenda boobu moo mujj ba élection euh, locale yi la ca xaw ñëpp gis nañ ko les grandes villes benn bokk yaakaar ñàkk ko te ñi doon campagne bi ñuy campagne lan la doon campagne ku voteel benn bokk yaakaar da ngay dooleel ngóor jigéen ba looloo tax président yéen ñëpp ay fàttaliku keroog bi mu woowee waa ANOS muy association nationale des imams et oulémas du Sénégal te imam Moustapha Gueye jiite ko yàlla na borom bi dolli ko yërmande ak njëggal keroog ñoom ñu dem télévision ñëpp seetaan ko président wax leen naqaram te it sant leen ci nañu wër lu nu yàqoon ñun ñoom nañ ko defar loolu ñun man maa ko jiite te bari na ci barab yoo xam ba ma fay dem ànduma kenn man doo nga ànd am na ci barab yoo xam bi may dem sama soxna képp laa ànd am na ci barab yoo xam ne bi may dem sëñ jiili jaxate képp laa àndal ci biir Sénégal am na ci barab yoo xam bi may dem nag am na ñuñ àndaloon mooy mooy état bi ci gën a néew mooy bi ñu déparé fii à état bu euh, Dakar ba Touba jaar diggante Bambey ak Ceneba euh, lañ njëkkee keroog Bambey euh, Diourbel dem Gosaas dem ba délégation bi dellusiwaat maa ngi nuyu bokk yi volontaire woon yëpp ñu ànd ba foofu waaye li des lépp maa ko volontaire wu maa ko loolu bi mu amee ñoom lañ doon wut bëgguñu ko législative yi dikk yëf yi gën a dàbbaliku ñetti première yi am fii pour la première fois régime bi nekk place organiser ay élection législative ba noppi ñu gagné ko ci maanaam senegal sénégalais yi voté li ci ëpp voté lu ñu Benno Bokk Yaakaar benn ñaareel ba Benno Bokk Yaakaar euh, euh, raw gàddu gee waral waaye bu fekkoon te ni ci euh, du woon raw gàddu li am ci nombre de sax duñ ko am waaye ñoom dañu caa teg perte dëkk yu mag yëpp ñu gañe leen fa waaye foyer religieux yëpp yi tamit ñu gañe leen fa c'était une première mosul am ci Sénégal foyer religieux yëpp régime bi perte ko mosul am un député nga am quatre-vingt-deux députés opposition am quatre-vingt-trois yi ci def ak opposition lañ tamit kon quatre-vingt-trois députés la opposition bi am parti au am quatre-vingt-deux députés malgré irrégularité yi am ci élection yi yëpp loolu te ñoom lan lañ campagne ku voteel Benno Bokk Yaakaar euh, da ngay dooleel ngóor jigéen kon ñun xeex bii amul ku nekk ci biir Sénégal gi di fi yowwoo koo xam ne ëpp nga ñu ci taxawaay amul dafa fekk ni nag ñun yàlla ak réew mi rek a taxoon ñu def soxlawuñ ci benn publicité communication ak leneen luy nuru ak pay ca loola lu dul pay bu jóge ci yàlla loolu moo waral gis nga ak yi ci dolleekuwaat injustice ci tegoo ba élection présidentielle bi mu dikkee ak xëy na président Macky gisin beneen bu mu ci amaat tax na fi mu ne yëfi gën a yomb ba opposition bi jàll au premier au premier tour kon bu leen xalaat mukk ni nit ñu nekk ci tarixa yi amuñu ci taxawaay man fii ma toog tey jii di wax li ma sama yaram ji sutante sutante tàmbalee ca Medina Gunaas ba ci Pire ba ci Yoof ji ak feneen fu mën a doon xalifa yi ku ma ci wax ni ma bul fanaan ci réew mi donte minuit la woon bul fanaan ci Dakar gi du ma fi fanaan te loolu bari naa ci ay moroom kon nit ñi nañu am raison garder ku ci am sa agenda bopp nag ni da ngay xeex tarixa yi xeex ko te fësal ko te bañ cee rax leneen ñu xam la waaye am na ñoo xam ni seeni wax ci loolu sax jëpp commentaire ndax tuuti nañ ci ndax gone yu maq suuf rek lañu kon nag li may ñaan mooy ni li wóor mooy ni président bu fekkee dafa yéene Cheikh Omar mën na koo def conseil spécial am mën na koo teg feneen foo xam ni la mu ko yéene mën na ko koo defal waaye fee mu nekk en da koy indil ay jafe-jafe te lii ma koy waxit wax naa ko ko man noppi naa ci na yónni yàgg nag ñu dox tuuti xam dana gis yàq-yàq yoo xam ne si dana ko yàq te moom du ko mën a defar dana ko ëpp doole te boobaa bay dana wéy mbuus loolu mooy li ma ci amoon lu ma ciy wax man mbindeef mënumaa tax a euh, parparlo mbindeef mënumaa tax a jeng sama xam da koo wees ndax tey jii fi ñu toll ci àdduna ni mu jaxasoo ak réew mi nga xam ne lépp priorité la on a besoin de fédérer tout le monde pour liggéey réew mi dama ni sax opposition beeg ñëpp xeexoo bu naw mii ak bis bii yii sax jaru ko réew mi moo war a doon la priorité ñu liggéey réew mi waaye am na ay détails ak débat yu terne ak yu creux yoo xam ni bu ñu ci bëggee dugal dañuy tardeel tout simplement tout simplement am na ay enjeux yu ëpp solo yu nekk ci réew mi te dañ ko war a xam man nag li may daaneele ci sëñ Touba sëñ Touba moom dama gis ni puissance coloniale ñëw def ci moom lu mu man te mënul ci moom dara kon gone guy mëq suuf bu jógee ni day jéem ca moom man loolu sama yoon nekku ci dama koy bàyyi sëñ Touba moom jëm te li may wax dama koo teg fu leer Serigne Abdoulahat vidéo bi danaa ko ajouté ci kii bi sax ñëpp déggaat ko waa Paris Match dañoo def benn article ci sëriñ bi lu ñaaw la nañu wax ko ci ay sénégalais am na yu nekkoon ci ginnaaw te xam nañ leen ay murid yu bari jël seeni journal ba dem seen bilaat jàngal ko ko wax ko seenu naqar ak seenu mu tontu leen la mu leen tontu nag mu wax ko ci penc mi ñëpp dégg ko ni am na journal bopp am na lu mu wax ci sëriñ bi wax ko ci man nii man nag lu waaye mën a wax ci man woyof toy woyof na toy am maa jëmmi sëñ Tuubaa nag lu waay ni mën a wax ci moom moom ñaar rek a mën a am ak xetam bañ laa xeen wa illaa ni ko yàlla def neexu la ñaar yi nag dara lu ci jar mer maa nga jar nga def dara amu ci ndax ki ko xetam xeeñul kooko defu ko dara yàlla muy dogal moo tax xetu sëñ Tuubaa xeeñul ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu koy tamit kooko feebarub ki ñaan la am kooko yi tamit ñun sun yoon nekku ci ndax mooy alal boppam ba tax na kon wax na ni alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna almuqafa man qalamiya yardahu wax ni euh, biraazu man baarizani biraazu man yubarizul muntaqimun baariza man ida talabtu min illahi jalaba wa in sarafu billahi salaba kooku man wax dëgg yàlla mbiram du sotti la mu ni sëñ tubaa du ku ñuy xeexal du ku ñuy xulool sëñ tubaa ku ñuy yaakaar la ku ni yaakaar la suñu yaakaar dañ ko soti moom ndax gëm na ni li wax dëgg la li mu wax ci yàlla am na ko ci kon suñu yaakaar a ngi ci moom sëñ Tuubaa ku ni liggéey la mooy loola mu ñu wanoon ni ku jaar dem ci yoonu yàlla loola mooy liggéey bi loolu ci la ñu fas yéene nekk waxtu wu ci nekk sëñ topp la mooy yoon wi amul lu mu mas a joxañ moom sëñ Tuubaa ni dem leen def ko lii sëñ Abdoulaye ko wax lu ci ne da caa jiitu kon kooka ku ni roy la dañuy topp ci ay tànkam yooyu man foofu laa nekk man Ababacar Mboup ku yaakaar ni nag am nga maqaamam jëlee ci lii xamoo sa bopp te xamoo li xew loolu ma répété waat ko man ci fii laa nekk te dara duma fi jóg te sama bët maa ko te ci bis penc ba bu ñu fa dajee foofa nga xam ne dara luy umpe nekku fa mbiri jàpp noo ngi daaneel suñu kàddu foofu wax ji xaw naa gudd waaye ñàkkul ni euh, mënuñu ko woon a gàttal ndax am na ci yooyu boo ko gàttalee mën naa indi ay lënt lënt loolu rek ko waral ñoo ngi dellu di ñaanal suñu kilifa yi rek ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mbooleem ñi nanku foyer religieux yi ci biir réew mi yépp ak kilifa aada yi ñoo ngi ñaanal ñëpp di ñaan yàlla moom mi nga xam ne tolewul dara yàlla nañu dimbali def ñu ay dëgg dëgg jullit yàlla na borom bi kenn ku ci nekk yaakaar da yaakaar ak ci kilifa ga nga ko yaakaaree la nga koy wuti yàlla na borom bi jàppandal la ko ci defal la ci lu koy sa njort koo xam ni beneen gis-gis nga am i tamit ci wut yàlla akum yonentam te jàpp nga ni doo ca am kilifa it ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dimbali la ba gillil la fegal la seytaane ba la ngay bëgget nga am ko